jàpp nga ne Macky li ko conseil constitutionnel wax parce que à l'époque on disait que Macky Sall moo bañ moo dem ba ci biir mu rétropédalé jàpp nga ne le conseil moom moo joxe moom moom moom moo imposé. alors euh, le mandat de sept ans. je te dis deux choses la première chose mooy Macky Sall s'est de nous. Hmm. waaw parce que moom bu wuti avis conseil constitutionnel. xamoon na constitution bi sant ko Macky Sall dafa mën jël décision moom kese wàññi mbaa mu yokk mandat sans l'avis du conseil constitutionnel waaw waaw révision constitutionnelle Sénégal article 103 la article 103 bindul fenn da ngaa war a jël avis wu conseil constitutionnel article 103 da ngay wax ak ne initiative bi diw ak moo diw moo ko wala député wala président de la République mu jàll assemblée nationale ñu adopté bu ñu adopté ba dem référendum wala ñu dem à la majorité des trois cinquièmes de l' assemblée nationale loolu moo nekk article 103 Macky Sall bàyyi fa beneen article boo xamante ne dafay wax ne le président de la République après avoir euh, recueilli l'avis du conseil constitutionnel et de tel pour soumettre tout projet de loi au référendum ñaata ñaata ñaata révision constitutionnelle moo jaar fii Sénégal dindiwuñu fi poste premier ministre dinañ jaar nañu conseil constitutionnel jaaruñu fa parce que article bi tudd de la révision de la constitution prévoir l'avis du conseil constitutionnel donc Macky Sall moo provoqué décision conseil constitutionnel pour kooku aaye ko wàññi mandat benn deuxième chose moom nag bu mu laajee conseil constitutionnel ne damaa bëgg wàññi sama mandat mais conseil bi yemul ci tontu loolu xam nga conseil bi ñoom moom avis la ko laaj conseil bi génn benn affaire ne moom lii sax du avis léegi décision la du dëgg léegi ba mu nee léegi lii décision la mu dem dafa dépasser li ko Macky euh, demandé conseil bi génneen ñu benn décision benn considérant 32 dinaa la ko yónnee après ne léegi Sénégal à partir de maintenant dès waxtu wi ngay jóg di dugg commencé benn mandat xam nga ñaata temps ngay toog ci biir mandat bi léegi mu Sénégal kenn mënatu fi wàññi wala nga yokk mandat quelles que soient les circonstances même au gré du au gré du jeu politique dit le conseil constitutionnel donc l'histoire de dañuy dindi mandat yokk mandat wala reporter deux ans je vous le dis tout de suite ce n'est plus possible au Sénégal ça s'est fait sur les euh, euh, euh collectivités locales pourquoi parce que simplement personne n'a saisi le conseil constitutionnel dañoo dem ba amatul majorité assemblée bu mun a saisir le conseil constitutionnel mais aujourd'hui boo ko defee on saisit le conseil constitutionnel le conseil constitutionnel est obligé de rappeler sa jurisprudence sur ça donc cette histoire là il faut le mettre de, de côté on a joué à se faire peur et d'ailleurs quand je l'ai le ministre de a sorti un communiqué Benno Bokk Yakaar a sorti un communiqué donc report élection amul jeex na dañ ko dañ ko teg fële maintenant nag je suis d'accord avec toi c'est-à-dire bu muy woote ne damay dem dialogue y a boo xamante ne responsabilité am la woon mooy parce que yow booy woote dialogue y a une contrepartie booy demander toujours la contrepartie là la waroon teg aussi ci kaw table bi moo tax ma ne la sànq man bu ma duggee dialogue dama fa gën suspendre parce que ce que j'attendais moi le discours que j'attendais du président de la République ce jour-là c'est pas c'est pas ce que j'ai entendu aujourd'hui y a des yoo xam ne. ban ban contrepartie nga doon teg. c'est-à-dire moom non xaw ma ko laa xaw ma lan la def xam nga maa ngi positionné ba ñii dañoo waxoon ne dafa bëgg a reporter ma génn kayit ne loolu s'il veut demande un troisième mandat je dis aussi ça aussi c'est pas possible c'est pas possible c'est-à-dire que man sama parti ak keneen du ñu d'accord sur un compromis sur un troisième mandat ça il faut il faut quand non man je peux pas être d'accord sur ça xam nga lu tax gis nga dama lay wax sax gis nga la question du travail du affaire wu ñaan njekk du dara Macky Sall mu daj jàkkaarloo réew mi gis nga la question du troisième mandat du question wu dialogue politique warul bokk si agenda wu dialogue politique dafa am dialogue boo xamante ne moo ëpp doole dialogue politique mooy dialogue avec le peuple le référendum moment de dialogue avec le peuple la le président de la République xëy na yow ba ngay jóg di voter di yow. di voté di oui ci référendum bi Macky Sall moo la woo wax yow ne la man nii damaa bëgg tey Sénégal bu fi kenn deewati bu fi kenn xëccooti sa affaire troisième mandat donc moom moo woo askan bi ne leen woteel leen ma euh, constitution bu bees bi parce que damaa limité maintenant mandat yi te mandat yi mu sama bopp la tàmbalee donc moom dans son dialogue direct avec le peuple moom moo proposé texte peuple bi ne ko texte bii ma la proposé dama ko def pour ñu régler définitivement la question des des mandats